ñu nga ñu def Moustapha ñu ñëw ci fond bi euh, nga xamante ni Ousmane Sonko yëkkati na fa ay kaddu moom moo njëkk a jël euh, sax euh, kàddu gi wax waxtaan bu yàgg ci wolof moom Ousmane Sonko mu ñëwaat bu baax a baax ci li nga xamante ni xew na fi ay rumeur yu ñu doon wax mu indi ci ay leeral bokk na ci waxtaanam ak Macky Sall nee na waxtaanam na ñëwaat na ci ki nga xamante ni moom moo di seen kandidaa muy Bassirou Diomaye fay lam ca seede ci loo xam ne si nii jàpp na ni ku euh, ku jub la ñëwaat na ci Amadou Ba mi nga xamante ni moom mooy seen euh, adversaire euh, jamono ji comme ni ko Ousmane Sonko waxee donc ñu nee na en tout cas du nit bi ñu jàpp ne moom moom la moom Amadou Ba ndax yenn yoo xam ne si ni def na ko mu fekkee ko foofu ci fa ñu nekkoon muy impôt impôt domaine ñëw na ci dem ci ci en tout cas domaine yu bëri moom Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay la même chose moom aussi wax na donc ci fond bi la bëgg bëgg a ñëw doore ko ak euh, li nga xamante ni euh, Moustapha mooy euh, mooy mooy waxtaan bi ne dox na ci digganteem ak président Macky Sall mu mu mu mu dëggal ko moom Ousmane Sonko te ñu bëri dañ ko doon baña ah, bi mu nekkee ci biir ñu ne waxtaan amul Sonko musul waxtaan ak Macky Sall mais Ousmane Sonko dëggal na ko noo ko jàngatee. waaw je pense que wax ne waxtaan mosul am moom loolu moom ñàkk xam nu nu réew mi nu doxee la surtout politiquement nu muy doxee parce que nit ki soo ko tënkee da ngay am loo moom ci moom. te attends-toi suba buñ nee la am na kilifa gu mag a mag goo xamante ni Ousmane Sonko toog na bureau am jékki toog na si biir bi jékki-jékki rek ñu tijji ko dugal na ko toog. Mhm. ñu toog waxtaan. loolu lépp mi ngi ne parce que nee bis bu ñuy bind seen i bis bu ñu commencé wax. Mhm. yu bëri xew na fa nee mbir mi moo raw film Kaboy. Mhm. loolu dégg ngeen ko mboq ay waxam. te loolu ni ko Ousmane Sonko mën a waxee noonu la ko Khalifa Sall non pas wax ne affaire yi bon dañuy jékki-jékki rek ñu ñëw indil la ñu wax di waxtaan ak yow parce que moom. non loolu jaar na ci quoi noonu noonu la mës di demee. même Idrissa Seck bi ko laawaa dencee c'était comme ça. Mm. dañ lay téye di envoyer émissaire ñi ñëw. léegi nag sa dépend ci leader bi ñuy fekk ci biir foofu. Mm-hmm. lan lay nangu lan lay bañ a nangu. ak lan lay def bu génne ak yenn engagement lay jël. Mm-hmm. xam nga loolu moom tey ji côté yow yaa yaa am moom ci lépp bu la mm-hmm. neexee mu wuyu téléphone bu la neexee du téléphone bu la neexee mu gis visite bu la neexee du gis visite mm-hmm. donc loolu lépp day doon loo xamante ne euh, man bu ko waxee du ma surprendre maintenant il fallait que mu préciser côté boobu wax nit ñi parce que yaa ngi gis ñu bëri yenn opposants moom lañ commencé woon def fonds de commerce mm-hmm. maanaam lan la dilee lan la waxtaan lan la def nii lan la def nii boo nee dil cela sous-entend que ni am na loo xamante ni jël na ko comme engagement loo xamante ne dafa koy war a fay suba wala daf koy war a def euh, su génnee ci biir kaso bi te moom lu mu préciser mooy ñett yi ñëw waxtaan ak yoom ñëpp d'accord ci ak d'accord ci ak ñoom mm. ba ñu mujjee leen jalax ci biti Khalifa Sall ba muy génne fii dafa lànkoon na du du demandé wul grâce mais on se neen dem si yàlla son avocat Mbaye Touré Euh, mu ture Khassimou Touré maître Khassimou Touré autant pour moi Mbaye Touré moom moo nekkoon daaj bi Omar Khassimou Touré yàlla mujjee na ko yàlla moom na ko sax moom moo ne woon man maa man maa ci taxaw parce que damaa bëgg ñu génn xalifa lànk ne man du ma du ma génn ci kan maa tuumal donc c'est-à-dire ñoom buñ la c'est façon de faire buñ la jàppee dem ba tollu fenn fii dañuy lire tamit actualité politique bi am na fu ñuy toll nekk ci kaso arrangé wu leen am na fu ñuy toll nga nekk ci kaso daf leen di arrangé loolu nag régime bi moo ko baaxoo di doxee moo tax léegi loolu bi ci ñenn ñi bëggee sukkandiku naan noo dil am na lii am na lële am na je sais pas en tout cas dafay dafay dafay dafay dafay compliqué trop nga wax loo xamante ne yow doo ci acteur wala fekke woo ko fi ñu toog ni Ousmane Sonko moo génn wax léegi beneen côté bi ak ñeneen ñi gén ñële génnuñu wax moo tax dafay compliqué trop nga taxaw nga ne non deal am na lu tax Sonko wax li lu tax mu nëbb li lu tax lii lu tax lii lu tax lële je pense que dafay dafay laaj euh, prudence li mu wax lañu mën agum dégg ba en attendant ñi dégg keneen comme ni génne na beneen kàddu boo xamante ne wala beneen version boo xamante ne wuute na ak li nga xamante ne wax na ko loolu mooy li jiitu beneen mbir bi nga xamante ne euh, ñëw na ci euh, muy lu am solo mooy ay précisions yoo xam ne def na ko ci euh, li nga xamante ne mooy programme am mm-hmm. parce que da koy dégg mu ñëw ci wàllum franc CFA bi ak poste vice président bi xam nga vice président bi bu ko waxee ne dañ koy falandoo ak ki nga xamante ne mooy président bi ñu bëri dañoo ne woon kon jomaay dañ koy fal pour après moom Ousmane Sonko ñu jiite ñoom ñaa ñu jàkkaarloo mais loolu c'est mal lu parce que mm-hmm. su fekkee dañ ne dañ leen di falandoo bii pas kenn falandoowu leen. cela suppose que ne kay bi am 2029 lay doon donc loolu wala suñ koy def bokk peut être ay réforme lay doon yoo xamante ne référendum lañ koy jaare askan wi ne d'accord nañ ci mhm. donc def na précision boobu euh, ñëw na tamit ci loi loi d'amnistie bi mu ne d'accordul woon d'accordul woon jox ay directives ñi nga xamante ne ñooy ay euh, ñooy ay euh, ñooy ay député am bu ñu répondre lii ak lii ak lii ngeen def nii bu ñu deful nii ngeen def nii et noonu la noonu la mu dee jàll mais li ma ci li ma ci jàppee rek li ma jàpp ne moo ci ëpp solo li ci gën a fës mooy mhm. orientation bi nga xam ne tourné na ko léegi ci Amadou Ba loolu dañ ci ñëw loolu bëgg naa ñu kii ñu kii ñëw ci euh, rencontre euh, euh, <coughs> sa waxtaan bi nga xamante ni am na ko ak Macky Sall ñu soog a ñëw ci missile yi nga xamante ni envoyé na ko Amadou Ba mi nekk en mhm. pleine campagne Kébé mhm. noo ko jàngatee yow mm, Ousmane Sonko mi ne waxtaan am na ci digganteem ak Macky Sall ba ñi mu am na benn jamono mu ne mu leen bu ngeen wax leen Macky Sall bu mu démissionné parce que dafa bëgg processus bi continuer xam dama bëgg a ñëw d'abord démb ci forme bi li ma gis man foofu noonu parce que boo xoolee Ousmane Sonko euh, déjà mi génnee mhm. dafa moom làq boppam jiital ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye mhm. ah, en fait mu fës mhm. mais démb aussi tamit man bi ma dikkee la même chose laa doon xaala bi man boo xoolee sax su benn concert bi ma toogal may naan xoolal tey xoolal li ma la wax tey Diomaye cellule la candidat moom mooy mujjee Sonko mooy njëkk a wax Diomaye mooy mujjee wax mais effectivement noonu la ko Sonko doxalee te boo xoolee euh, avant muy ñëw génn na nuyu ak les patriotes maanaam ñi nga xam ni daw nañu pour Ousmane Sonko gis ko. dem na hmm. nuyoo ak ñoom ba pare ñëw hmm. saa fonte ak ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, patriote yi mais bu ñu dugg see salle bi gis nga bi mu nuyoo leader ba pare. moom hmm. Ousmane Sonko parce que Jomaay moom moo njëkk ñëw toog ah. mu ñëw nuyoo ak leader yi xam ñu ngi woon foofu noonu saafoonte kenn ku ne parce que dañu ko dañu ñaa El euh, dafa ñaan taskatu xibaar yi que il faut ñu may ko euh, moom Ousmane Sonko pa parce que mi ngi soogay génn euh, leader yi c'est sa coalition parce que c'est la coalition du président. mu saafoonte ak ñoom mais bi mu nuyoo ak ñoom ba pare dafa dem. ni nuyu Diomaye Faye ni ko président Diomaye nuyu ak moom ñu nuyoonte saafoonte ñu soogay toog. moom Ousmane Sonko jël kàddu ba pare. doogay bàyyi ki nga xam ni moom mooy Bassirou Diomaye Faye mhm. moom mu soogay jël kàddu en fait loolu nekk man lu lu am solo loo xam ni Ousmane Sonko euh, mi ngi nekk di parce que moom mi ngi koy wax que ni jëmmam ji amatul solo parce que léegi Diomaye Faye moom mooy candidat te ku ne mhm. xam ne ni nag wax dëgg yàlla Ousmane tey ni Diomaye Faye mel moom moo ko ko mel mhm. léegi moom su amoon nu mu doxalee tuuti rek Diomaye mën na bañ a feeñ alors que c'est lui le candidat même démb bi ñu génnee ci caravane bi moom moom Ousmane Sonko maam daf bi mu ànd ak dafa génn yëngal fuul bi yëngal ko ba gars yëngatu mu bàyyi jomaay mu doxal affaire maanaam euh, ci forme bi saa saa su ne ñee gis ni moom Ousmane ko léegi dafa jël boppam relégué ko au second plan mhm. bàyyi ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mu jiitu commencé jël ya fi en tout cas doxal mu nekk benn quelque chose boo xam ni démb euh, nemmeeku naa ko foofu noonu ca en tout cas salle de conférence bi nga xam ni euh, ñoom teew nañu fa ci seen première sortie parce que euh, ñi ngi woon ci kaso bi. léegi mmh. nag ci li nga xam ni ñëw na ci mooy ndax dil am na. wala déet Ousmane Sonko mooy le seul leader bi nga xamante ni si moom saa su ne li mu tàmbal ay militant ba ci Sénégalais yi mooy. xam nga ñun dañ naan non diw homme d'état la ak nangam nangam Ousmane Sonko moom day ñëw ni mbir yi amee ni yëf yi amee. Mm. moom noonu la koy waxee en fait moom amul naan lii dafa sensible loolu nangam moom fii nekk na loo xam ni. concerné na Sénégalais yi mën na ci jot moom su dikkee da koy wax en fait ni mu amee du ci am lenn loo xam ne daf koy seet wala loolu lu muy lax wala lu muy layam layam yi bi mu nekkee ci kaso bi coow bari nañu ñi nee nañu mi ngi dil mi ngi waxtaan parce ni ñu gisee ni ñu ni ñu commencé bàyyi ses militants ni mu commencé bari Ousmane Sonko génn ñi leen effectivement waxtaan am na mm-hmm. mais lii ak lii ak lii ba gis nga histoire li mu mujjee joxe bu dikkee ñi leen effectivement mm-hmm. yoo xam ni man ak ñoom déggewuñu ci benn a jàpp parce que benn bi mooy dialogue bi. Bassirou Diomaye Faye euh, nu mu tuddati ku nekk mën naa dem Amadou Ba demul ci dialogue bi. Mhm. waa euh, Pastef ñu ci dialogue bi beneen bi ci des mooy lan euh, pour report élection yi. moom nee na ci boppam jëm dafa dem sax ba tere ay ay nitam ñu bañ a déposer recours pour que ñu continuer li nga xam ne mooy processus électoral parce que dafa ni. Mhm. tey président Macky Sall warul mën a sukkandiku ci jëmmam ji. pour mën a reporter li nga xam ni moom mooy ay élection présidentielle kon loolu mën nañu jàpp ni euh, dégguwuñu ci poñ boobu noonu. Mhm. te loolu la ñu fa waxtaanee. kon mhm. euh, même su fekkee ca loolu waxtaan mënta bañ a ñàkk. Mhm. parce gis nga xam nga wax nañ ko fii ma ne gis nga Ousmane Sonko ma nga prison Cap Manuel mais yëf moom moo tee yëf yi président Macky Sall nekk fii di. dem naan ay wuy dialogue di layam-layam yi ñoom ñëpp soxlawu ci kenn ki yore yëf yi mm-hmm. te mu bëgg wax ak moom c'est euh, Ousmane Sonko mooy usman Sonko par force nag mais Ousmane Sonko tey président Macky Sall du yónnee ay ndaw mu naa leen noo duma leen gis mm-hmm. loolu mënta ne dina leen déglu mais déglu nit ki waxtaan ak moom mais tekkiwul ni da ngeen a déggoo wala ngeen di diile man loolu dama ko yàgg wax en fait moo tax ma ni tey loolu Ousmane Sonko le la que mu ñëw wax ak ses militant ak ses sympathisants que ni waxtaan nañu mais lii ak lii la ñuy waxtaani mais déggoowuñu ci ah, loolu c'est extrêmement important moo tax démb tool li mu doon bari bari bari yaakaar naa que ni en tout cas li xawoon na lëndëm ci bopp ñenn ñi euh, déjà kon euh, xaw na leer léegi nag ki nga xam ni moom moo di président Macky Sall parce que boo xoolee moom ci jëmmi boppam Mahfouz instant bi nii moom mooy xool naka lay. defaree ses ses arrières pour que mu mën a génn ci nguur gi parce que xam na ne instant bi mhm. euh, Diomaye Faye mi nga xam ne moom Ousmane Sonko euh, jiital mhm. moom ci boppam moom moo gën a placé pour gagner élection présidentielle léegi mhm. que dafa war a dem nag il faut que mu xool naka lay boo moo tax mu force ñu luwaa loi d'amnistie bi effectivement léegi nag loi d'amnistie bi dafa profité wala ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko parce que léegi jotaat na li nga xam ne moo di éligibilité jotaat na parti Pastef am mais euh, boo booyam yu ci bare bari f bi libéré nañu leen ñu génnaat amaat perte. Mhm. même su fekkente ni dañu voté non. léegi nag président Macky Sall boobu nga xam ne tey jii su fekkonte ni Ousmane Sonko accepté woon na dile ak moom. Mhm. mais mënoon nañu xëy ne man jaar ci yeneen yoon yu dul ay loi d'amnistie yu ni mel mais que dem na euh, teg. ay condition am te loo xamante ni si ni Ousmane Sonko xëy na àndu ci ak moom mais il faut que moom nag euh, mu xool euh, ay propre stratégie naka lay mën a doxale pour euh, hmm. mën a aar boppam ak ay njabootam moo tax ma jàpp nii loolu bokk na ci li tax mu dugal li nga xam ne mooy loi d'amnistie bi euh, nga xam ni dafay def table rase ci fee yi nga xam ni moom moo fi jotoon am yëpp hmm. noonu la nekk di def ni moom président Macky Sall parce que xam na nii xam nga la la fois passée ma ko man Ousmane président Macky léegi amatul problème mu nguur gi dal ci loxoy waa Pastef hmm. mais di def nii mooy fexe raxas ba euh, bu fi génnee ginnaawam bandang en fait hmm. parce que xam hmm. na ni jamono ji moom li ñu naan bay wéene muus moo tax ma jàpp ni tey ñu doon wax naan noo dil dil dil euh, Ousmane Sonko moom alaa kulli xaal même bu ñu la ko waxul hmm. war nga xam ni président Macky Sall mi ngi jéem a def nu mu waxtaane ak moom mais nag xëy na moom ci logique ba nekkoon mooy que ni waxtaan ak euh, pistolet ci bopp ci looleel nekk ba ba léegi moo tax xëy na en tout cas ñu ñu ñu mu jur lii nii